حسبي الله حسبي الله وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب نور فؤادي ولفرح صدري واجعل جهادي كيوم بدر bokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu di jiital ci nuyoo bi ak Seex Muhammadul Basir ibnu Sëriñ Abdul Xaadir moom mi fi teewal xalif général des Mourides sëriñ Mouhamadul Mountakha Mbacke yàlla na ko fi yàlla yàggal damay ko wér ñu ngi nuyu ministre bi di nuyu gouverneur ak préfet ak sous-préfet di nuyu mbooleem chef de service yi ñu àndal di nuyu kilifa yu tedd yi fi toog di nuyu maire yi ak chef de quartier yi ak chef de village yi yëpp Ah, bis bii nag li waral daje bi ku ne xam na ne mooy bisu màggal Tuuba ndax bis bi rëy na rëyaay woo xam ne boroom sàkk woon ci loo xam ne muy sant ci boroomam ak di ñaan yàlla bu ak see ñépp santle ko ci yàlla kon mu mel ne jullit yépp am nañu ci wàll te lépp lu ci waay def mel na ne sa bopp nga ko defal kon bu ko kilifa yi taxawalee ba egsi fii jiital ci Cheikh Mamadou Basir ak ñi ko ciy jàppale gouvernement bi itam am ci taxawaay bu ràññiku ca ba ñu ko tàmbalee waajal ba nëgëri def ci ay daje yu takku ànd ko kilifa yi ba agsi fii kon jataay bi mel na ne jataay la boo xam ne war nañ leen cee sant gërëm leen ci mu mel na nag euh, mbir moom ku koy woote te ka nga cay woo am ca wàll mu war a ñëw def ca wàllam mel na ne feeñ nat fii tey ndax mboolem ñi fi jël kàddu ci chef de yi ku ci nekk la nga wax wane na ne am nga ci yéene ju rëy te am nga ci taxawaay boo xam ne jéem nga ca sa kem kàttan donte ci ndigal nga ko des muy ñale yëlif feeñal nga ci sa cofeel ak sa yéene euh, bis bi nag moo toll noo xam ne lu ñu ko waajal waajal du ñàkk mu am ay benn yu ca des ndax bu ñu demee ba màggal gi des ñaari fan wala ñett ngir gan yi ñëw ñu am yoo xam ne jéem nañ ca waaye teewul des na kon loolu dafay am lu mu tegtale loola mooy bu bu ñu dëgg dabee rek tañ di ko wax nañ xam ne nun ñii ñuy dimbale dañuy jàppale si ñoo war a xoolaat suñu bopp te am neneen luñ ko war a waajale ñu bàyyi xel ci ne màggalu Tuuba organiser ko ci nawet lu metti la ci ñépp waaye ci néew ji doole yi la raw ndax am na ñoo xam ne bu doon taw noor ak nawet mën naa bañ a nekk jafe-jafe ci ñoom ci fa ñu dëkk mën naa bañ a nekk jafe-jafe ci ñoom fi seen oto di jaar waaye am na ñoo xam ne bis bu ci nekk dana wecc weer ci ñoom ndax metit ak néew doole kon ñooñu nag mat nañoo bàyyi xel te waajal leen te li tàmbalee 2019 bii ñuy waaj a dugg ba ci vingt 2026 jàpp mille 2027 mu war a nekk juróom-ñeenti at ci kanam jàpp fukki at màggal gi nawet lay tase kon loolu kenn ku nekk war na ko bàyyi xel te néew ci doole yi ñoo ciy gën a loro ndax ba fii may wax yéen am na ñoo xam ne gan ña daan dal seeni kër jafe-jafe la ngir ñu mën a agsi ci seeni kër ndax bañ génnee seeni kër yàgg na te mën a guñ caa dellu te noona seeni kër mel wàllu dund ba it noona la demee te nag li mat a wax mooy man ñi nga xam ne ñoo jiite woon yoon bi sëriñ Touba seexal leen ñenn ñi di doomi ay sëriñ Touba ñooñu ku ne xam na ne jamono bañ daan organiser màggal bi booba jamono neexu ndax booba ñu ci gën a jekk ñu ci bari ay fas la ñuy war ñenn ñi di dox ñi fi daan indi mbooloo mi ay camion lay doon yoo xam ne bu ñuy dugalee seen benn tànk ci biir bi ci des a nga ca biti nga xam ne nekkin wu tar la ñuy ñëwee ñi ci des dugg ci saxaar bi kon loola ñoom nañu ko daan organiser yaakaar naa daawuñ aj lépp ci gouvernement bi la ci ëpp dañ daan jiitu ànd koog donga yi la leen sëñ Tuubaa baaxe lépp nag ñu def ko ci ba mu jeex tàkk donga yi fekk leen ci loola waaye dafa mel ne fii mu ne buñ ko seetee li ci ëpp dañ ko bëgg a yem bi te bu boobaa ana nun lan mooy suñu warteef ana nun li ñu sëriñ tubaa defal nun fañ lañu ko war a féete kon loolu war nañ cee bàyyi xel te seetaat ko bu baax a baax ndax kenn ku ne boo wéetee danga xam ne sëriñ bi féete na la fu ne waaye yow nag war ngay xalaat fan nga war a féete sëriñ bi kon nag bu fekkoonte ne bis yi ñuy màggal ci at mi te màggal bu ci nekk ñu woo ci gouvernement bi mu def ca la man ak lam mënul bu ci amoon lu ñu leen ci wàññil tuuti dana tax bis bi bu agsee dara bi ci suuf ci seen wet loolu nag waxuma ko ngir défendre gouvernement waaye damaa xam ne loo xam ne yàgg ñépp a ko bokk te li leen war fii war na leen feneen te nun kenn nattablewul ne Serigne Touba mënal nañu lépp lenn lu nekk mënal nañ ko suñ bopp kon nañ ciy waajal suñ bopp li am solo it mooy dëkk bi li muy rëy rëy ak li mbooloo bi bari bari quartier bu ci nekk am na kilifa gu fa féete benn mu nekk sëtu Serigne Touba wala mu nekk seex boo xam ne Serigne Touba seexal maamam mbaa baayam kilifa googa bu yëgoon ne la ko Serigne Touba defal war naa mën a saytu quartier bi yépp waajale ko màggal bi ba ndox du taa fenn mbalit du am fenn mu jàppale leen ci dund ca la ko sëñ bi baaxe war naa xam ne war naa weesu ganale ganu boppam kese kese kon kenn ku ci nekk nañ waxante dëgg te teg ko ci yoon du lu ñuy gàll xalif général du lu ñuy gàll port parole bi yoon wi dépassé na foofu màggalu Tuubaa dépassé na foofu sëriñ bu nekk quartier ba nga nekk fexe la jagal lu fa nekk sañ nga loo ca lëntale nag nga ñaan ñu indi la technicien bu la mën a accompagner ba loola jag waaye nañ delloo Serigne Touba njukkal te xam ne Serigne Touba li mu ci defal jombante naa kenn ku nekk foo ci sa kër fas yéene rek di dund dund koo xam ne kii ña ca des ump na leen ñay xiif ak ñay mar ko ci jéemoo ca lenn nañ jéem a jóg ci yoon te jàppale ne bi ca bisam bii buñ ko defee suñu lépp jag wasalaamaaleykum wa rahmatullah